onze billahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi xaritu internet sans limite sn point com ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di jaar di leen màggal bu baax a baax ñëwaat nañ ki nga xam ne mooy Serigne Babacar Diop di euh, tradipraticien buy liggéey ci wàllum alxuraan ak i garab yoo xam ne day faj lépp loo gis waaye itam bu neexee borom bi subhaanahu wa taala Serigne tey moom la ñu dalaat euh, sëñ Babacar maa ngi leen waaleykum salaam ñu ngi leen di fay di wax onze billahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli di nuyu mbokk internet yi di ànd ak yéen ci émission bi incha allah alors cette fois ci nag émission bi dañ koy waxtaanee ci garab gi nga xam ni moom seriñ Babacar Diop daal dina koy génne pour mu saafara yenn jàngoro yi garab gi nag mooy yi ngeen gis ni euh, muy pot bu bees bi nga xam ne am na lépp loo soxla ci biir waaye tungu ne du teew ñuy nataal dañ ko dañ koy euh, bàyyi moom Serigne Babacar mu daal ñu koy expliquer bii mooy ban garab avant ñuy démarrer. ñun ñoo ngi ko tuddee super mélange super dañ ko tuddee nga xam ne base composition bi abord sawda la. ak yeneen gàncax yoo xamante ni mu ngi ci biir eh, mu nekk garab boo xam ne ni ni ko nit jëfandikoo jafewul ndax ni nga xam ne loolu noonu la ko nit war a jëfandikoo bu amee jus mën na ko booleeg moom su amee tee mën na ko booleeg moom waaye li gën nag mooy mu am bu amee mu wut lem di ko boole ak lem mën na ut gen genn waa litre lem genn waa litre lem bu ko defee mélange garab bi di ko naan matin midi soir kudd bu ndaw dégg nga ne bu amee mooy tee wala jus waaye bi gën mooy lem kon est-ce que mënuñoo wax nii itam euh, dem ci lem bi directement mooy gën nga nga jël ñetti yooyu nga lim. waa dem ci lem bi directement moo gën euh, waaye xam nga bitim réew ñoom dañu am problème mu lem miel pur bi ñoom boo xoolee am na foofu mais miel pur dafa jafe. parce que force miel pur lañ ko war a boole. waa miel pur mooy mooy ndax bu fekkee ne tey lem bi nga xam ne tàndarma lañ ko defaree wala ñu defaree ko beneen euh, beneen euh, produit boobaa mën naa bañ a génne doole garab bi yaa ngi dégg wax bi mais bu fekkee ne comme miel pur bi nga xam ne am na vitamine yëpp bu ko defee bu ànd ak lii gis maanaam dooleem dafay feeñ dooleem dafay feeñ nga xam ne garab la boo xam ne euh, ñun dañ ciy faj hémorroïde ci lu gaaw incha allah waaw garab bu baax ci hémorroïde la xam ne moo xam hémorroïde bu génn bi la moo xam hémorroïde bi ci biir la waaw nga xamante ne moom am na ko ba di ko jëfandikoo rek da ngay gis dootu ko daaneel da koy traité définitivement. ci àpp bu yàgg wala bu bu gàtt. déedéet moom kay bu commencé jël garab ndax garab moom bu dee dalay faj ci ñetti fan yu njëkk yi moom bi nga ko jël war nga gis moom mu soulagé la ba li nga doon yëg ba tax nga jënd garab bi mu dem ci yow. est-ce que euh, hémorroïde boobu rek la garab gi di faj wala am na yeneen jàngoro yoo xam ne moom garab bi lay dina ko saafara. waaw ni baaxee ci hémorroïde noonu la baaxee itam ci ulcère noonu la baaxe itam ci estomac noonu la baaxee moom ba ci impuissance bi moom baax na ci noonu la baaxe itam ci pertention artérielle waaw lu mel ni itam ay nerf ndoxu siti yooyu yëpp incha allah bu fekkee ne nit ki am na ko di ko jël da koy dindi. dafay traité définitivement waaw te weexul lu neex a jëfandikoo la. mais yooyu euh, feebar yooyu yëpp yi nga wax ni mën nañ koy saafara dangay gis ni ci opp yi boo demee ci hôpitaux yi euh, moom moo fay ëpp yi ci mel ni ay neer sciatique yi ci mel ni hémorroïdes yi ci mel ni euh, yenn ballonnement yeeg xeeti fi jàngoro yooyu noonu est-ce que ci wàllum hôpital boobu ñoom itamit yéen a ngi leen ñu bàyyi xel maanaam lii bu demee ba am ay effets secondaires maanaam nga jël ko mu am leneen lum la lum la beneen gàllankoor gum la teg. waaye lii moom mbooleem li ko li ñu ko jëfandikoo yëpp nit ki mën na ko consommer parce que consommation la alimentation la sa bu dee abar soda wala ay fenugrec yooyu nit ki mën na ko jëfandikoo parce que dañ ko yonent sax saa salaam da ko digle ñu fajoo ko même mburu euh, ñun composition bi ñu def nga xam ne day faj loolu moom rek nga di ko jël noonu dafa baax abar lu mel ni abar soda lu mel ni fenugrec nga xam ne tey abar sowda yonent bi dafay wax day faj bépp jàngoro bu mu des dee te fenugré tam macha allah noonu la amee doole ci wàllu faj moo tax mënut tam effet secondaire ala kulli xaal képp xam ne jël na ko da koy faj. mais ci garab yooyu noonu nga fenugré beeg xabatu eh, sawda bi bi nga koy mélange dafa am àndaaleeg alquran wala nu mu demee. waaw nit ki moom base fajam lépp base fajam lépp da koy sukkandiku ci alquran. ak ci ñaanu sunna yi waaw loolu moom da ngay ñaan yàlla rek yàlla def ci barkeem ndax loolu ba ko yeneen tuddee la am barke la mën a faj ba ko yeneen tuddee rek la ci njariñ boobu nekk te yonent tudd na ko ne xabar sawda sifaaw kulli daa sifaaw kulli daa day faj feebar yëpp moo tax mu nekk loo xamante ne ni euh, ala kulli xaal képp koo xam ne jël na ko rek te jublu ci mu faj ko dina ko faj moom da koy faj day faj hémorroïde da koy faj ci lu gaaw dafay faj tam ballonnement baax na aussi ci ku am ku baax na ci ku am ndoxu siti baax na tam ci ku am euh, baax na itam ci ko am lu mel ni euh, ndigg luy metti waaw problème digestion tam ku ko am garab bi baax na ci waaw garab bi moom xanaa nit ki kay bañ koo jëfandikoo maanaam maanaam ñàkk koo am mais koo am lépp loo xam ne wax nañ leen ko ci bu fekkee jël nga ko ko ci gis. bi livraison à domicile lay doon wala képp ku bëgg itam dangay ngay déplacé ñu Serigne Babacar Diop mu daal di la koy jox itam balaa nga koy jox ni da nga koy consulter ba pare xam ni ba xam ba xam garab bi compatible na ak organisme euh, balaa nga koy jox garab gu ni mel. xam nga euh, ñuy faju si ñun la may wax ne ñu gën a bëri day fekk ne dem nañ hôpital ba sonn xëy na sax def nañu opération. ba mu leer na ne ñoom liñ bëgg mënuñu ko am ci garabu olof tubaab ñu door a wëlbatiku door a ñëw suñu da wax ji nekkul ne maanaam nekkul ñoo xamante ne ni dañu tëb tëb ñëw si ñun am nañ fu ñu jaar ba ba noppi door a ñëw si ñun bu defee bu ñëwee si ñun itam euh, lépp loo xamante ne ñëpp maanaam ñi ñëw si ñun lu gën a bëri demoon nañ ba jaaxle ba ñàkk yaakaar da jàpp ne dootuñu wér te bi ñëwee si ñun dogal na leen jox gis nañ ko ndax fi ne ni lii di erni ñun léegi ñoo xam dañuy dem ba ñu war leen opérer maa xam ne jël nañ rendez bu ñu ñëwee suñu ñun bu ñu leen joxee garab bi ñu leen di jox bu ñu ko jëlee ci diir bu ñu leen wax maanaam diggante bu gàtt da une semaine la jël garab bi rek mu daal di dañ si ñoom. ba am garab bi livraison à domicile lay doon wala euh, ku bëgg da ngay sañ sëñ Babacar. waaw bu nee garab bi maanaam ku ko bëgg tey boo ñu woowee mën nañ la ko muy Sénégal muy bitim réew foo nekk rek ci àdduna mën nañ la ko livrer bu dee dëkk yi nga xam ne amul GP boobaa itam mën nañ ko defal post poste leen ko. bu defee bu ñu ko posté itam di ngeen ko jot waaw. ñu ngi leen di jaajëfal ñu daal di bàyyi sëñ Babacar nag mu tàggatoo ak internet sans limite sn point com su ko defee ñu itam ñu daal leen di jox dig daje ba beneen yoon sëñ Babacar attention. Euh, waa ñu leen di tàggu di leen wax waaleykum salaam wa rahmatullah di ñaan yàlla def jàmm ci mboolem àdduna bi yëpp. alors mbokk yi xaritu internet yi li leen indiloon ngi noonu garab gaangoo képp koo xam ne soxla nga nga nekk ci mim réew wala bitim réew mën nga woote ci numéro boobu ngay gis en bas de l'écran moom Serigne Babacar mu daal la koy livrer wala nga fekk ko fi mu nekk ñu ngi leen di jox dig daje ba semaine prochaine ànd ceeg Serigne Babacar Diop jaa ngeen jëf